naa ñëpp kontaan nañ xombaluwaay kontaan nañ ñëpp génn nañ en masse ñëw seetaan si match bi courant coupé woon na ay moment mooy li ñu doon fàttali rek ñun nag on est indépendant du point de vue énergie tey bu courant coupé woon nag ñun dañuy continuer di seetaan suñu match donc on invite tous les xombolois fu ñu mën di nekk ñu ñëw seetaan na donc ñoom comme dañ ko defee ñaari match yi ak ñetteelu match bi ñu ngi jeexital ci victoire u Sénégal 3 buts ci benn ci dara euh, ci kaw Kenya muy ñuy fàttali nag Sénégal 92 bi nga xam ne ni Sénégal dooroon na Kenya ci même score bi 3 buts à 0 maa ngi fàttaliku biu euh, Bokande ak Victor Diagne voilà ba ay xale la ñu woon am lu ñu ciy fàttaliku tuuti alors di mbég rek mbégte sentiment mbégte nii nañ koy dundee bu ñu amee lu ñu naqari ci match Sénégal Algérie bi ñu dundandoo ko ñëpp daal di triste bu ñu amee lu ñu neex tey ci match bi muy doon match bu rëy bu ñu gis ci deuxième mi-temps boo xam ne ni Sénégal waneewaat na beneen kanam gannaaw bi nga xam ne ni ci première mi-temps amoon nañ lu ñu metti tuuti ndax Sadio manqué man Mané manqué woon na tuuti de de hargne et de caractère ci première mi-temps bi mooy wane penalty bu mu raté mais gis nañ beneen Sadio Mané ci deuxième mi bi ak beneen équipe du Sénégal qui a marqué 3 buts en deuxième mi-temps dont 2 de Sadio Mané sur penalty et comme il avait raté un penalty en première il en marque un en deuxième mi-temps satisfaction totale pour tous les Khombolois rendez-vous ñu ngi leen di woowaat tey ci huitième de finale yi Sénégal wala keneen ku mu mën di doon ñu ñëwaat supporter l'équipe du Sénégal ba jusqu'à la victoire finale merci. oui satisfaction globalement de tous les Khombolois euh, satisfaction pour la copie qui a été rendue par euh, l'équipe du Sénégal et bravo à bravo aux Khombolois qui sont sortis en en, en masse suivre avec nous ce match. héroïque en deuxième mi-temps, mais un peu hésitant en première. On a eu une première mi-temps, ah, ou en première mi-temps, une équipe du Sénégal qui manquait un tout petit peu de caractère, à l'image du penalty qui a été manqué par Sadio Mané. Mais en deuxième mi-temps, on a retrouvé une toute autre équipe du Sénégal qui s'est battue, qui a été combattue sur toutes les lignes de l'attaque jusqu'à de la défense a valu aujourd'hui un 3 à 0 de Sénégal 92 où le Sénégal avait battu le par 3 buts à pour se qualifier. Justement un de satisfaction et de fierté. Et c'est de, ce, de, de, de cette fan zone, c'est que nous puissions vivre nos émotions ensemble. Après la déception de Sénégal euh, qui s'est soldée par euh, une défaite, enfin, enfin, une défaite du Sénégal, ou une déception de tous les Khomolois qui l'ont suivi ici avec nous. Aujourd'hui, on vient de vivre une toute autre émotion, une satisfaction, une fierté, un sentiment de, de, de bonheur et de contentement pour les Lions qui nous ont rendu une belle deuxième mi-temps qui s'est soldée par 3 buts à 0. Globalement, euh, on se qualifie. On a eu, euh, disons, 6 euh, euh, points sur 9 possibles. On a marqué cinq points en 3 matchs. C'est une bonne copie en attaque. Malheureusement, on prend un but à un match où on n'a pas marqué. C'est ce qui nous a valu peut-être cette défaite. Mais bravo à eux et on se donne rendez-vous ici, à la même place, et deux heures avant la rencontre pour euh, euh, euh les huitièmes de finale. Sénégal contre qui encore Ouganda Ouganda ou On, a, on, ne connaît pas. On Pour le moment, au Sénégal, Ouganda. Uh-huh. Et ça nous fera une belle rencontre ici.